Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse. jàngeen jëf li ñu caxat caxate ak taal makkaanu taxaw Sénégal fës lool ci yéenekaay yi tey réew mi quotidien mi ci addu fësal na kàddu Khalifa Babacar Sall mi nga xamante ne moo jiite taxaw Sénégal ci boppam nee na daañu yóbbu yëfee ci yoon ndax dañu déposé plainte gannaaw nag kàddu yu njëkk yi mu yëkkati yoon Abbas Fall ci boppam mujj na ci jéggalu li ba am yéenekaay groupe Rewmi Network bi mu ngi ñuy xamal ni daal jëwriñ ju ñu dénk wàllub yoon nee na danañ ci ubbi ab l'enquête ndorteelu campagne bi nga xamante ne ànd na lool ak fitna ci ndakaaru Vox Populi di xamal ni kon capital bi ci boppam jibatina ak ay xeetu fitna yi nga xamante ne kon mën naa yàkk xew mi ndax màkkaanu taxaw Sénégal bi nga xamante ne dañu ko taal ak i cocktail molotov gannaaw loolee xalifa Sall mi ko jiite nee na dina yóbbu yëfee ci yoon ndax ab plant da koy déposé ci li mu duppee kon ay actes yi nga xamante ne criminel la ci biir l'info yéenekaay ñu ngi ciy fësal kàddu Khalifa Babacar Sall ak baxte Barthélemy Dias ci boppam ñi nga xamante ne jàpp nañu ni daal li ñu def seen siège ab acte criminel la li ñu def nag siège yu taxaw ak attaque bi nga xamante ne def nañ ko cortège bu Pastef tax na ba L'As Quotidien gis ni fitna gi daal dugg na ba noppi ci campagne électorale bi na gi ci boppam Le Quotidien gis ni daal ab cocktail explosif la te bu ñu ko bàyyee daal mën na indi musiba ci réew mi yéene kay Madiambal Diagne bi di fàttali siège yu taxaw bi nga xamante ne dañu ñu gis ni kon bokk na ci li taal yëf waaye ministre bi ñu dénk wàllub yoon moom nee na dinañ ci ubbi ab l'enquête donte société civile mu ngi koy ñaawlu di sàkku dal ci yëf dal moom bu amul fi ñu jëm war naa métti ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien gis ni kon ci pente dangereuse la ñu nekk moo tax yéenekaay bi mel ni kuy xaar enquête bi nga xamante ne jorin ju ñu dénk wàllub yoon yëgle na ko moo ne de njiitu réew mi li mu yëgle woon mooy campagne bu dal waaye nag kàddug Bassirou Diomaye Faye ci boppam dégguñu ko kàddug Barthélémy Dias ci biir yéenekaay bi gannaaw ba mu ko ñaawloo ba noppi ma ngay sàkku tamit ñëpp ànd ak dal ministre bu ñu dénk wàllub yoon moom ci Sud Quotidien yégle na ab enquête ci jamono ji nga xamante ne jëwriñ ju ñu dénk kaaraange bi réew mi wax nay tamit ci kàddu yi nga xamante ne dañu koy yëkkati bu yóbboo ñu daal di koy xoolaat ndax loolee rek mën naa yee fitna mu mel ni ba yëf yi xewee ba noppi enquête quotidien moo ngi ñuy xamal ni Pastef ak sàmm sa kàddu ku ci nekk mu ngay jam sa moroom baaraamu tuuma li yam ba am jëwriñ ju ju ñu dénk wàllub yoon moom artu na ba noppi ndax nee na lépp li nga xamante ne kon war nañ ko ci jibal ci wàllub yoon dinañ ko def ak ay enquêtes yi nga xamante ne dinañ ko ubbi l'observateur di xam ne ni sax enquêtes yi moom door na ba noppi ndax Abbas Fall waroon nañ ko auditionné ca section de recherche benn vigile ak ñeenti gàrt yi nga xamante ne ñoo doon fanaan ci siège taxaw ñoom sax déglu nañ leen ba noppi waa coalition takk wàllu di déglu seen njiit Macky Sall l'observateur xëy tey def gëstu bu yaa ci njiitu réew ma woon ndaxam dina dellu si yéenekaay groupe Futur Média bi xam ne ni kon dara leeragul suñu naataango yi di njott sax retraite bi nga xamante ne waruta neex ci moom Macky Sall kàddug Abdoul Mbaw ci yéenekaay bi nee ñu ba fi ñu tollu daal li ñu tàmmu mooy ne tekk ci li nga xamante ne mooy dikkaatug Macky Sall ngir bokk ci campagne électorale bi campagne bi moom xumb na lool ni ki démb ca diwaanub Diourbel Les Échos di fësal démonstration de force bi nga xamante ne Abdoulaye Sylla def na ko ba noppi mu mel ni kuy dànkaafu Ousmane Sonko moom sëñ bi Sylla ci boppam lu muy sàkku ci premier ministre di jàkkaarloo ci ab débat leneen lu mu yëkkati ni kàddu jëmle ko ci Amadou Ba mi nga xamante ne dafa jàpp ni moom daal weesu na ci wàllu politique lu muy sàkku ci moom mooy mu rocceeku ndànk dem noppalu ca jamono jooje Ousmane Sonko mi jiite listu Pastef moom noppalul benn yoon yor-yor bi dañu xamal ni kon démb waneeti na boppam ak mobilisation bu takku bi nga xamante ne waa Petite Côte ñoo ko def kàddug jëwrin ju njëkk ci biir yéenekaay bi di xam ne ni kon ñoom waruñoo lajj benn yoon di kaat na sax ci vision 2050 bi mu jàpp ñi la jamono ji Sonko di mobiliser le soleil yéenekaay mu ngi ñuy xamal ni ñeneen ñi ku ci mel ni union citoyenne bunt bi ñoom ay visite de proximité la ñu tàmmu ba campagne bi dooreek léegi ba exploitation pétrole bu Sénégal dooreek léegi ca Sangomar réew mi quotidien mu ngi ñuy yëgal ni lu toll ci juróom-ñett yu toftal fukk ak juróom-ñaar ci ay millions de barils moom la ñu produire diggante weerub juin ak septembre bi wees banque mondiale ak FMI noppi nañu ngir gunge Sénégal rawatina référentiel Sénégal 2050 bi bu ñu ci libération mi wax ni partenaires yi daal dafa mel ni nangu nañu audit des finances publiques bi nga xamante ne nguur gi yees gi def na ko li Rodri def fës na ci réew mi sport ndax yéenekaay bi mu ngi ñuy xamal ni milieu de terrain bu Espagne nekk tamit ca Manchester City moom moo jël ballon d'or bi ni ki démb mu nekk mbetteel ndax ñu bëri dañu yaakaaroon ni Vinicius di doomu Brésil bi moo koy jël record jël Jackson fësal ko ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi gis ci moom beneen tolluwaay jamono ji na ko